li ma bëgg a wax euh, li ma wax léegi ci nasaraan dinaa ko tënk ci kàllaama Kocc Barma maa ngi dooree sama wax ci naqarluwaat li nga xam ne xew na démb fële ci Taïba Taïba Ndiaye nga xam ne Sénégal yëpp gis nañu alkaati yi ñëw dal ci kaw ndaw Taïba njaay ba gaañ ci ñu bëree bëree bëri su ma leen waroon photo yi fi ne nii nga xam ne seen i yooyu ñu yor moom lañ leen tiire ñii ci tànk ñii ci conc bi ñii ci biir bi ñu gaañu gaañu yu métti ñu ci bari ci ñoom tey ñu ngi hôpital Tivaouane defe naa am na ñu ñu rawale Thiès am na ñit ñu ci jàpp juróom-ñett te lu ko waral defuñu dara Ousmane Sonko doon def tournéem jaar Taïba Ndiaye nga da leen di siyaare général Moussa Fall yónnee ab colonel ak commandant bi ñu ñëw yor seeni ngànnaay di tiire ci kaw waa dëkk ci ñoo xam ne defuñu dara lu bon wala lu ñaaw lii mooy nguuru Macky Sall lii mooy gis-gisu général Moussa Fall ci lan mooy sécurité gis nga njàmbaar nekkul ci ñu dénk la ngànnaay parce que ci réew dañ ne kenn rek la ñu jox mu am sañ-sañu jaay nit ñi doole mooy ki nga xam ne dafay dox ci turu moo tax ñu ne ko yow am nga droit yow ngànnaay ñun ñii ñoo cotiser jënd suñu ngànnaay jox ko ngànnaay googu duñ jàmbarte nga dem fekk ay sénégalais yoo xam ne yoruñu ngànnaay ni yow entraîné wuñu defuñu dara nga nga nga leen di jaay doole bu ko defee ñu xëy ne on les a loolu du jàmbaar bu doon ay samba mooy dugg nañ ci dëkk bi ñu dal seen kaw ñun ñëppay tàccu mais jox la gànnaay nga wëlbati ko ci sa population di ko ci jëfandikoo loolu trahison la tudd loolu rafetul moo tax ku ci yaakaar ni jàmbaar nga wala ñu waa APR leen jay naan woy félicitation à nos FDS yaa ngi nag sa bopp de bañ lay recruter bañ lay forme bañ lay jox ngànnaay dal ci kaw sénégalais yi daje ci ëtt di waxtaan taxuloon lii mooy nguuru Macky Sall waaye fi muy mujjee narut a baax ndax li may wax toujours ndaw lépp mi ngi dépendre ci seen détermination waaye Sénégal amul benn réew boo xam ne rawatina ak Sénégal am na matuwaay yoo xam ne bu askan bi jógee taxaw ne déet mën nañ ko dégg amut yi ñu def yépp ay défilé 4 avril di wane ay drone ak ay nangam-nangam c'est pour gagner la bataille psychologique c'est pour xoqatal ba kenn dootul ñeme. waaye jógu Sénégal jógu sénégalais 65 pour cent de jeune de population bi jógu sénégalais yi xajul ci Macky Sall xajul ci Moussa Fall xajul ci jeune euh, yàgg moo tax bu leen dara ragalloo loo léeg dafa bokk sa bëgg sa réew bu réew mi demee ba toll fenn nga jóg taxawal réew mi te foofu la ñu toll jamono ji ñaareel bi maa ngi waxtaan maa ngi wax ci lu jëm ci justice su Sénégal mooy attekaay yi may wax ni li nara a réew mi yàlla ñu ci yàlla musal li nar a andi fitna ci réew mi mu nga jógee ci justice te du weesu juróom wala fukki magistrat yoo xam ne li taxoon ñu teg leen foofu li taxoon ñu waat ñoom ne loolu la loolu la ñuy jëfee fàtte nañ ko bu yàgg teg nañ ko fële nekk nag ay bàyyi faalu Macky Sall bu leen nee tëjal ñu tëj bu leen nee bàyyil ñu bàyyi réew bu justice ba sooxee rek réew mu sooxee na lépp mën na sooxe ba mu des justice justice boobu nag yéen gis ngeen Macky Sall lim ci nekkee fi mu ne nii weer wu nekk wala ñaari nekk mu def consultation à domicile changer ay juge parce que day tànn ay nit am lu mu bëgg ci ñoom dem ba ci biir am ko mu gaawantu soppi leen la ci gën a nag ci li muy bëgg ci ay juge te amu ko mu mer mooy fexe leen ba condamné leen na Ousmane ci peine boo xam ne dootul mën a nekk candidat la ca des mooy ñooñu Ousmane Sonko yi jàpp leen ci ñu bari def leen mandat dépôt pour que ëllëg mu am poñ bu ma jàpp bu ma ko jàppee justice boobu nag ñun daf ñoo yàgg lool damaa bëgg a fàttali Sénégalais yi ndax fàttali day jëriñ borom xel. bi ma commencé dund naa man ba 2016 musuma am affaire ak justice jàng toppatoo sama yaram toppatoo sama diine dem liggéeyi kenn maa xam ci dara 2016 laa commencé jëflante ak justice te mu ngi méngoo bi ma duggee ci politique ci laa commencé jëflante ak justice 2016 ba léegi lu ne justice teg na ko sama ndott pour bëgg maa lor ak bëgg maa gàllankoor te tegu ko ci dëgg nag ma niwal leen ci yenn ma fàttali leen ni daaw jéeg bi ñuy commencé seen complot bi woo nañ ma ne ma naa dem uy ji section de recherche boobu jamono dama amoon sama malaanu kiiraay yoon ne kenn mënul woo député bu am malaanu kiiraay wala nga jàpp ko lu dul rek teggi nañ malaan boobu ñu teg ci dara juge bi nga xam ne moo fi newoon juge d'instruction daal di yónnee assemblée nañu teggi sama malaanu kiiraay te jamono joo xam ne procureur bi nga xam ne moo yor bi tudduma ci dossier bi moom x la wax mooy ku ñu xamagul assemblée nationale ci base boobu mu teggi sama malaanu kiiraay te ba mu koy teggi commission bi ko waroon def méngoowul ak charte assemblée nationale bu ñu jógee foofu ñu woolu ma le 3 mars 2021 ma jóg di dem tribunal ñu attaqué ma fii ci rond point ci rond-point Stel Mermoz jàpp ma yóbbu ma section de recherche téye ma fa juróom-benni fan yoo xam ne kenn ci Sénégal xamuloon ci yenn anam laa bu dul woon taxawaayu askanu Sénégal kon tey jii du ma toog fii di wax ak yéen maa nga rëbës loolu tax li ñu bëgg a def nii mënuñu leen bàyyi ñu def ko xam ngeen ndax lan loo xam ne fukki bakkan ak ñeent rot na ci. ngir bañ injustice bañ tappale ak bañ jaay doole ñu teg ci ñaari weer Macky Sall ne fa ma tegoon dossier bi fa laa koy delloo si wéyale ko comme dara amul ñun suñu seetaanee loolu du gor parce que xale yi nga xam ne seen bakkan rob na ci dafay mel dañ leen trahir ak li xew ci senegal yépp ci jamono jooju te weesuwul benn groupe nit bu ndaw nous sommes 17 millions de Sénégalais groupe bu ndaw a ndaw a ndaw ne ñoom dinañu def leen neex ci réew mi ñu jàpp ma foofu forcé may affaire yoo xam ne wax naa ko léegi ci nasaraan ba keroog le huit bañ may yóbbu ma déedéet avant le huit le cinq defe naa bi ñu may yóbbu ci juge bi samay avocat dañoo bañ ñu ñëw teewee te yoon dafa ne kenn ku nekk am nga droit avocat te juge bi amul droit déglu la te sa avocat toogul yéen ñëpp gis ngeen bës boobu avocat yi dañoo taxaw ci buntu juge bi di dóor ci bunt bi di ko fëgg pour ne ko ubbil parce que dañu am droit lu kenn mësta gis ñu jógee ci loolu ñu ne def nañ ma contrôle judiciaire ñaari at ak lu tegu nee nañ Ousmane Sonko amul droit tukki amul droit dem faju ji wala su amee mbokk ci bitim réew wala comme maire la amul droit dox ay njëriñu maire yëpp comme maire yëpp ni ñu koy defee lépp ñu xañ ma ko lépp ñaari at ak lu ci tegu li ci may gën a yéeme saa su ma bindee ne leen damaa war a génn fii ñaata nit ñoo nekk contrôle judiciaire ña ngay dem di ñëw am na meer bu leen ko fii nee na depuis onze ans maa ngi contrôle judiciaire te maa ngi tukki tey ci suba rek la ma yónnee message ne ma maa ngi doog a ñibbisi maire nag Ousmane Sonko la ñu ne amul droit dox wala mu génn réew te saa su ma bindee ne leen damaa bëgg a génn tontu sax duñ ma ko def maa xam jàll du sax tontu te yoon dafa ne su ma bindee dafa ma war a tontu ne ma dinaa ko def wala du ko def ñu dellu si ci maa xam jàlloo ni mu instruction bu bon bu ñaaw bi mu instruire dossier bi dossier boo xam ne certificat médical ñëw taxaw ne leer nañu Sénégal yi gis ko gynécologue bi nga xam ne moo yor affaire bi ñëw ne man gëmuma lii yàgg naa liggéey am naa vingt trois ans de de métier bu ma gisee dinaa xam lu am ak lu amul di amut teg ci ne ñoo ngi koy xoqatal di ko menacer toj nañu oto daj nañu këram teg ci ne Gabiso ak Mamour Diallo ñëw nañ di ko proposer xaalis bu bëri pour rek mu soppi PV lool rek jeexaloon na dossier bi suñu nekkoon ci réew bu jaar yoon lool rek teg nañ dossier bi fële ñu jóge ci loolu ñu ne ah ay prélèvement la ñu defoon prélèvement yi réer la juge bi bi mu ñëwee fekk fi prélèvement serré amul mu dem bind euh, kii bi mu dem bind ñi nga xam ne centre bi nga xam ne moom la nañ ñëw moo def affaire bi def ci pression boo xam ne pour ñu bindal ko li mu bëgg a dégg mu téye ko ne léegi dugal naa ko ci dossier bi ñu am enquête interne gendarmerie boo xam ne ñu ngi ko téye ñun maa ko jox juge bi loxoog loxo ci enquête bi ñu gis ni Serigne Bassirou Gueye PV bu njëkk bi da koo manipuler dugal ci ay photo yu bon changer ci ay paragraphe rek pour mun charger ba loolu tam jeexaloon na dossier bi dans un pays normal moo tax ma déposé woon plainte contre moom ñu toog dégg ay ojo yu génn ki nga xam ne moom ne ne moom lañu ñu siif moo ñëw taxaw ne musutu am sequma sax dara ak moom juge woo ko ne ko lii sa baat la wala su baat mu ne sama baat la waaye dama doon caaxaan dama doon kaf yooyu yépp am fi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne suñ ko doon topp fii mun naa gudd malgré tout Omar Maham Diallo ne man Macky Sall nee na ma naa renvoyer dossier bi il faut ma renvoyer dossier bi loolu moo ci am may fàttali ni dossier yi ñuy créé di ko créé biñ ci mujjee génnee jàpp nañ seen benn mbokk journaliste Babacar Touré ci lan nee nañu benn waaye bi ñuy wax Frédéric Nappel nga xam ne am na ay condamnation moom à la prison ferme condamné nañ ko à prison ferme tey moom mooy seexu Maham Diallo mooy ànd ak Maham Diallo yor naa fu muy waxee ne moom Maham Diallo moo ko jëlee Guinée Bissau ndax biñ ko nee songal dossier Ousmane Sonko dafa ne dañ ko ne dañ la jox cinq éléments GIGN ak cinq éléments bi mu leen su ngeen ma joxoon cinquante sax doyu ma il faut ngeen andil ma Frédéric Napel ñu dem jëli ko Guinée Bissau mu ñëw nee bi mu ñëwee kooku moo ko ne kii nga xam ne moom moo ne dañ ko siif dee ma ko gungeel di ma ko yóbbul parce que dafa am problème sécurité ci koo xam ne am na condamnation ba tey ñu ne nekkatul alkaati moom mu ne nekk na alkaati ba léegi ci boobu li ma yor ma ne la ma ngay wax ne di toppatoo ab dossier boo xam ne ku doon luubal xaalis la di di raxas ay xaalis lu mat un milliard ñu ci tegu ñu jàpp ko mu dem di ko toppatoo ne Omar maa xam Diallo moo ko yónni te suñu leen jàppalee